والقلم وما يسطرون mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule boobule boobu nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci toolu listam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka ca topp cinq millions cinq cent ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois cent mille francs CFA C3S ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place neuf heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36 بنعمة ربك بمجنون boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi fooleen leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo ausu billahi min aseytaani rajimi bismillahi rahmaani rahimi mbokk yi ñoo ngi leen ci turu sunu sëriñ bii toog di sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Alxaaji Mbacke moom sëriñ Abdoul Baaxe moom sëriñ Massamba ci taxawaay bi nga xamee ne mi ngi koy taxawee fii ci Daarul Karim ci màggaluk maamam gi sëriñ Massamba Mbacke ni nga xamee noonu la ko waajuróom bu baax wa daan taxawe di sëriñ Fallou mbakke ñëpp xamoon taxawaayam ci màggaluk sëriñ Massamba ak yeneen màggal yu bokkut ak màggalu sëriñ Massamba tey jii nag ci Daarul Karim moom mu di ko dundal ni ko waajurum daan dundalee ci jàng alquran ak jàng xasaayit ak salaatu ala nabi ak bernde ba nu xëyee ba léegi ci loolu la nu nekk toogaayam bii nga xam ne noonu la toogee ca suba ba léegi noonu la ko toogee ci biir base bi ànd koog taalibe yi nga xam ne ñoom la ko yàlla booleel ak am di jàmmam yi ak wëllëre yi ak i soppeem fas yéene koo dundal ci li nga xam ne la ko waajuróom bu baaxoo doon dundale Serigne Fallou Mbacké nga xam ne jàng nañ fi ay limi kaamil yu takku lool ak limi xasida yu bari lool ak salaatu ala nabi yu bari lool jàng nan ko fi te it ba nu xëyee ba léegi ñu ngi def ay bernde loolu waa daayira bi ñu ngi ko baax a baax a baax sëriñ bi daal loolu rek noonu la koy dundale na ko waajurum doon dugale bàyyiwu ci dara di ko ñaanal nag suñu borom guddal aw fanam bu baax te wéral ay cëram ba yéenam ak naalam yëpp mu yàggale ko te bañ ci am benn gàllankoor ndax fa ma waajurum bu tegoon rek fa la nekk li maamam bëgg rek ca loolu la nekk di ca doxal ñun taalibe yëpp wax dëgg fa yàlla euh, euh, ñu ngi ko ñaanal baax mu yàgg fi loolu te

Nuuru Daaray nii ñi nga xamee ne ñoo lëkkale taalibe Serigne Moustapha Mbacke yi mu yëkkati ci ay kaddu ñëpp maa si diglu ko te teewlu ko bu baax kon Serigne Mame Gor Seck bisimilah kaddu gaa ngi. asalaamaaleykum <clears throat> wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare bu baax. di jiital ci nuyoo bi sunu Serigne Cheikh Moustapha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér di ñaanal njabootuk ma Massamba gépp xam naa di indi kàddu yi nuyoo ak siyaar ci mboolem waa daayira nooru daaray ni eh, la bopp ba sëriñ Mbay Njaay ci bitim réew waaye yàlla dogal ci biir réew mi ñu jiital ma fi waaye maa ngi nuyu mboolem membre yi nga xam ne ñoo topp ci man ku mel ne sëriñ Youssou Tall sëriñ Mourou baara jaw sëriñ maam Cheikh yéen ñëpp rek ak eh, sëriñ Cheikh Ami mi doon wax léegi ak sëriñ Talla Dieng mii nga xam ne moo nekk ci waañ wi waaye ñu ngi sant mboolem waa daayira bi sëriñ Bàcc si la Trésorier yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ne daayira bi kat mi ngi nii mbokk yi nga xam ne ñi ngi ñuy dégg nañu xam ne tàllal nañ seen loxo ñëpp pour ñu ñëw ci daayira bi ci daara ji ngir ñu mën a ànd liggéeyal Serigne Massamba waaye liggéeyal Serigne Abdoul Baax waaye liggéeyal Serigne fàllu mi nga xam ne moo doon suñu wasila yàlla dogal Serigne Moustapha mii di ab xalifaam teew fi eh, di nu ti gunge ci doon sunu sëriñ doon sunu lépp ñu jàppale ko ci bu baax a baax a baax mboolem koo xam ne dañoo nekk doon taaliba Serigne Moustapha ñu ngi lay tàllal loxo nga ñëw ci liggéey ndax loolu rek mooy njariñ te ba pare mooy sunu jariñu àddina ak alaxira te kat sëriñ bi kat bu fekkee dafa joxe ndigal ci ne nañu taxawal daayira bu tudd Nooru Daara ni bind aw jox ñu war nañoo xam ne sëriñ bi ku nu faggul lu mag a mag la ndax sëriñ Tuubaa wax nañ ne Nooru Daara ni kat moo doonoon ak xasidaam ba mag ñi sax bu leen musaana yónni xasida de bu leen nee yit leen ma sama xasida ga dan naan ko danaan dan daw dem indi Nooru Daara ni rek te xam ne moom lay laaj kon nag bu nu sëñ bi indilee turu nooru daaree ni war nañoo xam ne tawféex gu mag a mag la tànnal nañu loo xam ne nii moom la sëriñ bu mag bi gënoon a taamu kon loolu noonu gis-gis boobu ñun lañ ci am ba tax na képp koo xam ne yaa ngi ci nooru daaree ni yàlla na la yàlla taw feexal jotale la ci yool bi waaye képp koo xam ne yaa ngi doon taalibab sëriñ Moustapha ñi ngi lay ñaan nga ñëw bindu ci daayira bi te xam ne bëgg-bëggub sëriñ bi la te xam ne ndigalal sëriñ bi la ñi ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax waaw kay xam naa loolu rek lañ woon doon ko wax ay kàddu yu baax a baax bëggoon nit ñi lii mooy taxawaayu nooru daaree ni ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu sumb te sëriñ bi santaane ko bëggit maanaam ñëpp adapté wu ci ñëw bokk ci daayira bi kon ñoo ngi woo ñëpp li ci biir réew meek ñi ci bitim réew képp koo xam ne da nekk ci bitim réew sëñ Baye Ndiaye moom ngay jot wala maam Cheikh jaw su ko defee ñoom ñu ñu jël seen addiya di ko dajale foofa képp ku ne ci biir réew mi section yaa ngi fi section Serigne Baye Faye a ngi fi section Mortala fay Ndindi section Serigne Modou Diaw section Euh, Serigne su Tall section euh, Louga Serigne May soxna May Silla waaye section Ngalgu Kayar loolu lépp ay section la yoo xam ne képp ku ca bokk dëkk boo mën a nekk boo laajtee rek danañ la leen section sangam am na nga di ca joxe sa addiya bu boobaa nag ñu koy dajale di ko indi loolu lépp sëñ bi sant santaane sëriñ bi la nañ ci bàyyi xel bu baax a baax di nuyu bokk yi di leen siyaare di leen jaajëfal di wax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo wal qalami wa ma yas mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobu boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Xaadimu Rasuul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am six millions de francs CFA ka topp cinq millions cinq cent mille francs ñetteel ba cinq millions fukk ak juróom-ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog trois cent mille francs CFA c 3 ngi ko yëgal jiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place neuf ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. بِمَجْنُونٍ